jàpp naa ni jàmm moo gën élection jàmm aussi moo gën alal jàmm moo gën nguur comme que yàlla dogal nag li ma sëriñ Mountakha wax démb mooy ni ma dénkoon deux mille vingt et ba fi may wax a yow fépp fu ma mën di nekk dinaa fa woote jàmm naa woote dal ngir intérêt réew mi ngir intérêt askan wi ndax sëriñ Touba loolu la bëggoon ndax nee na jàmm moo gën fii moo gën fan jëm kon jàmm jooju maa ngi woo ñëpp ñoo xam ay acteurs politiques lan di ci jiital Macky Sall mi nga xam moom yàlla dogal mu nekk ci bopp réew mi pour que mu gën a tàllal loxoom gën a xam ne lii ñu ko dénk muumu ko dañ ko ko dénk te jeexal na ba noppi na fexe bu fi jógee réew mi am réew moo xam ne réew mu dal lay doon réew moo xam ne réewu jàmm lay doon réew moo xamante ni du am ay xàjj ak seen ci lépp loo xamante ni moo jëm ci moomeelu réew mi loolu nag tey ku ne xam na ne suñu xarit Ousmane Sonko mi ngi dund ay jafe-jafe yu métte métte métti ginnaaw buñ ko massa naqarlu ko fa naqar mën a yem ñaanal ko yàlla mi nga xamante ne mooy tegam natt mu teggil ko ko situation bi muy dund garaaw na garaaw goo xamante ni képp ku si yëkkatuwul sa kàddu pour man complice nga man nekkal fi askan wi laa nekk nekk député de peuple nekk taalibi Serigne Touba waaye tey ñeewante naa ko ci jafe-jafe yi muy dund te ñu bari seetaan ko si te méritowul loolu moo tax na ma taxawoon deux mille vingt et noonu laay continuer di taxaw si wetam ak wetu askan wi ngir que di ko ñaanal yàlla di ko jàppale pour que xat-xat yi mu nekk mu génn si di sàkku si nguur gi mu libéré Ousmane Sonko nu mu gën a gaawee parce que nag réew mi fi ñu toll nii kenn mënu ko yor te woote woo jàmm kenn mënu ko yor di tëj ci tëj nañu si ay kaso te jàpp naa ni Sénégal bu ñu bëggee mu avancé dañuy fàtte di jéggalante ndax kenn ku nekk tey boo xooloon ci sa bopp rek. da nga xam ni tooñ nga yàlla te yàlla mi nga xam moo ëpp doole jéggal na la kon tey situation bi mooy Ousmane sonk li muy dund mooy jàn lañ ko tëj si kaso bi daf ko mandat de dépôt tuumaal ko ay tuuma yoo xam ne depuis deux mille vingt et la ba léegi ñu koy toppee ba pare tas parti politique bi nga xamante ni moom la jiite woon te loolu ñu ngi sukkandiku ci loi 81 ak loi 89 loolu nag damay fàttali rek di wax ni 1963. ci leen gëjoon a tas parti politique te yaakaar naa nag kon rythme démocratie di ñuy delloo woon 1963 loolu lu doy waar la ci réew kon état bi na ànd ak xelam pour xam ni tas parti politique ci këyit yomb na mais kenn mun tas parti politique ci ay xol. Macky sàll maa ngi xa koy wax ni ko képp ku koy wax ni ko lii ngay def nii ci journaliste yi ci kilifa diine yi ci homme lu baax la daf lay nax parce que loolu jëmulu réew kanam. maa ngi sàkku aussi ci Ousmane sonk Pape Alé Niang ak ñoom Cheikh Bara Ndiaye ñi nga xamante dañoo attamé grève de la faim maa ngi demande ñu arrêté grève bi parce que nag képp ku gëm yàlla ku nekk da nga xam ne grève de la faim bi lépp lu la simandal lu nekk xaru la kon yaakaar naa ni loolu tamit maa ngi leen koy wax delloo leen ci xamante ni mooy diine ndax kat loolu lislaam daf ko tere fan yëpp nag am na ay jëf ay ñaawteef yu baree baree bari yu am si dëkk bi ndax jàpp naa ne réew kenn waru koo defar pare di ko yàq wala kenn waru koo bëgg pare ñu di ko yàq fan yi si ginnaaw gis ngeen ay nit yu attaqué ay bus Tata ñuy taal leen ñii ñu wax ne dañ leen a sànni ay cocktail molotov ba ay nit faatu sa ñu ngi koy ñaaw di wax état aussi mu jël ay responsabilités pour sécurité askan wi nga xamante ni moom la ñu ko teg ci loxoom ndax yaakaar naa ne buñ ñu jëm ay màggal événement yu toll ni ay 4 millions de personnes di daje si benn lieu ba par ay jëf yu ñaaw yi ñuy seetaan mi si biir dëkk bi loolu nañ ko arrêté. te xam ni Serigne Touba fi mu nekk mooy fa mu nekkoon démb Serigne Mountakha mooy Serigne Touba Serigne Mountakha li mu woote mooy jàmm ak dal ci réew mi Serigne Mountakha liy parte mooy lislaam Serigne Mountakha liy parte mooy yoonu murit ak mag ñu baax ñi nga xam ñoo fi tegoon liñ fi tegoon moom foofu la nekk képp ku ko xool fu dul foofu nag doo ko fa gis moo tax bi mbir mi amee 2021 ma bokkoon ci ñi nga xamante ñoom la Serigne Mountakha yónni woon ay ndaw ci ñun. jëloon ay engagement ak ay responsabilité am maa ngi fàttali askan wi ni mun taxaa loolu mu jëloon ay engagement ba léegi mi ngi ci loolu kon xam ni lam waxoon dama leen a yoreel bor bor boobu nag fay nañu ko ci loo xamante lu ñu gis la ak lu ñu gisul ndax bu ñu demee ba réew mi am jàmm ba réew mi am dal ba Macky Sall renoncé troisième mandat bi jëfi Serigne Mountakha la kon li des rek mooy li nga xamante ne ay dotine lan ñu téye leen ñu arte ndax jàpp naa ne képp ku mën a bàyyi nag comprendre ko mu ñibbi këram war ngaa mën a bàyyi dutine yi nga xam ñoo ne si biir dëkk bi ndax koo xam ni danga nga saaga Macky sàll saaga procureur de la république tuutal li nga xam ne mooy Sénégal nga dugg si dëkk bi ci clandestin bëgg génn si dëkk bi ci clandestin ñu jël la jàpp la même pas 48 heures ñu def seen lobbying pour bàyyi la génn la nga dem ñibbi yaakaar naa ne ku mën a defal loolu ab tubaab war nga ko mën defal ñi nga xamante ay doomu Sénégal lan kon ku mën a bàyyi avocat boobu de comprend ko war ngaa bàyyi Ousmane Sonko war ngaa bàyyi Pape Alé Niang war ngaa bàyyi seex Bara Ndiaye war ngaa bàyyi ñoom sëñ Assane Mbacké ak ñeneen ñi nga xam ne leen jàpp ci li nga xam mooy seen dellu ndax nag day mel ni Sénégal gin bokk ba tey dañoo nekk ay jaami tubaab yi ndax mënoo nekk ak xonq nopp toon réew mi ñu jàpp la 48 heures ñu bàyyi la nga dem tey ki nga xamante tey moo bokk si réew mi ñu di la traqué di la bundu xataal loolu yaakaar naa ne ba tey day firndeel ne amaguñ suñu indépendance loolu moo tax nag maa ngi laa si appel aussi justice ak ki nga xam mooy jiite justice ak président la mi nga xam mooy suuf suprême la magistrature mu xoolaat taxawaayam ci mbirum justice ak askan wi nga xam ñoom la ñuy traqué te xam ni yaakaar naa ni deux fois deux misirons war naa mën a dakk te dem naan justice bi jamono yi toll ni trois vitesses lay dawee ndax lii moom dafa flagrant ba ëpp ndax loo xamante ni tey li ñu kenn du ko jeex may laaj aussi. ci ban xaalis lan ko daggalewaat béyee mu dem est-ce que xaalisu réew mi la wala xaalisam la wala lool parce que nit ki bu lay refulee ngay dem dafa am béyee bu lay daggal béyee boobu noonu ci xaalisu askan la génn wala kan moo ko daggal béyee boobu noonu. aussi tamit di laaj aussi état Sénégal lan moo waral li nga xam moo lu koy tuumaal ci lu jëf ju ñaaw ju mu def jëme ko ci suñ njiitu réew nga xam institution la jëme ko ci procureur bi nga xamante ne suicide la. tey ñu mën koo bàyyi nii mu demal boppam te ñi nga xam dañ leen tuumaal ci mbirum justice loo xam ne ay ay bind ci seen page Facebook ñu téye leen pendant ñeenti weer juróomi weer ku si mel ay ñoom Bassirou Diomaye Faye ak ñooñu maa ngi sàkku tamit ñoom tamit ñu bàyyi leen parce que yaakaar naa ne kenn wurul maanaam jël tey tubaab bi teg ko kaw ni ku ñuul ki comme ni nga xamante ni tey noonu la ko Macky Sall bëgg a defe ci réew mi loolu aussi nañ a gaawee parce que loolu du yoon abonné leen